dal leen ak jàmm ndekete Sénégal ku fi doonub tama ñu tëggee leen lu ne tax mu génn ci pat pataaram gi moom soxna Aida mu Cheikh Béthio Thioune li nga xamante ni soxna si daal di na koy xamale ginnaaw ab bataaxal bu tukkee ci cellule de communication mooy képp koo xamante ni xaritam nga képp koy soppeem te wóolu ko yaakaar ko moom soxna Aida Diallo nee na taalibe lay mës di doon bu ko kenn woowatee sëriñ ak keneen koo xamante ni sax mu ngay jël ay photo wala ay texte mo ci vidéo ak audio lu mu ci mënti doon ngir tegal ko beneen étiquette bu bokkut ak étiquette taalibe nee na yaay yor engagement bi lu mu ci mënti doon daal soxna Aida daal neen na taalibe lay doon te moom lay mës di doon fii la nag ak boobu ñu leen di joxaat dig daje ci beneen actualité